Euh, euh, bëri que deux mois ak euh, deux cent millions de. parce que deux mois deux bu fekkoon dañu ko bëggoon tere mu nekk candidat est-ce que du doon dem plus loin. est-ce qu'il n'allait pas est-ce que duñ doon dem ba tere que wala dindil ko lii di ses droits civiques. xam nga éliminer Ousmane Sonko processus la. procès Mame Mbaye Niang Sonko bi xam nga lan mooy noyau processus bi maanaam le dépouiller jël ci moom xaalis. tënk ko xam nga Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ne nekkul politicien boo xam ne dafay dundee alalu askan bi wala alal bi nga xam ne dañ koo dénk ci poste mu tënk ko di ko politiquer sénégalais yi ñoo ko wóolu sénégalais yi ñoo ko bëgg dajaleel ko xaalis bu bëri ne ko doxalal léegi nag ñoom xaalis boobu noonu la ñu bëgg tëkk instant bi ni xam nga Mame Mbaye moo toog si boppam moom moo ne Ousmane Sonko dinaa ko ruiner il l'a dit de ses mots tout monde témoin donc a une

dama ko respecté que vous êtes plus dama lay expliquer <laughs> dama lay expliquer cest à loolu mooy dox ci Sénégal maanaam monde yi du benn instant bi nii nitu anti système yi ak nitu pro système yi dañoo toll foo xam maanaam mosuñu foo toll moo waral par mag yi toog di wax et di wax avec haine avec nervosité contre xale yi xale yi tamit toog. at seen yar at seen teggin maanaam di leen jox ay argument yoo xam ne day leer seen nopp loolu moo instant bi di nekk ci politique Sénégal te loolu moo jara waxtaane Ousmane Sonko day incarner l'anti système daf ko réussir éveiller Sénégalais yi yee leen si ba mu taxaw ba ne tëkk ñëpp am fit doxal muy man muy Bougane muy Abdourahmane muy keneen donc ça veut dire que dañ ko ko war a dellool nangul ko ko maintenant nag dem na ba benn instant boo xam ne tous les pro-systèmes et les produits du pro-système et les courtisans des ko éliminer dafa nekkul benn li ngay wax nii muy yow muy keneen koo ah. seet ci ginnaawam am na des gens yoo xam ne ce sont des purs produits du système derrière lui en quelque sorte. non man donc bu dee Yewwi ngay waxal waxuma waxu Yewwi man je parle de Ousmane Sonko en tant que président du PASTEF. waaw mais Ousmane Sonko nu mu nekkee anti système. Bougane Gueye Dany la nekkee anti système man noon laa nekkee anti système. y a des candidats anti système yoo xam ne ils sont carrément connus. dara taxaw wax ko. yow mi ko prôné wax ko que ce soit que ça soit Yewwi que ça soit gëm sa bopp wàllu wala sa mouvement ak keneen ak keneen euh, li doon gën mooy euh, nga def cette rupture quand même même bu fekkee ne da ngay dem ci benn coalition nga dem ci coalition boo xamante ne au moins dina am des gens qui sont des antisystèmes non Ousmane Sonko non non bàyyi ma bàyyi ma expliquer la man je te dis bàyyi ma expliquer la Ousmane Sonko moom moo am choix ànd ak ñi nga xam ne c'est des pro système moo tax man quand j'analyse Ousmane Sonko damay ne Ousmane Sonko de Yewwi Ousmane Sonko de Pastef tey xam nga kan laay waxal Ousmane Sonko de Pastef ba léegi tudduma Yewwi man je suis anti-système et je l'assume Ousmane Sonko il dit l'être il l'assume Bougane il dit l'être il l'assume d'autres l'assument mais xam nga wax ji lan la wax ji mooy que heure bi nii dañoo toll ci maanaam conflit de génération boo xamante ne ñi fi toog tënkuñu te je parle pas de leur physique ni de leur image parce que pour man anti système Macky Sall taxul ñuy wax. non damay damay expliquer en fait Macky taxul ñuy wax keneen taxul ñuy wax mais maanaam on parle du système en général et ce système là. par exemple su fi Karim Wade toogoon da koy continuer su fi Idrissa toogoon da koy continuer su fi Khalifa Sall toogoon da koy continuer te loolu man je toujours dit tout en soutenant que Ousmane Sonko man je sais carrément les produits du système je sais que ça soit dans l'opposition que ça soit dans le pouvoir et je les combats dama ne Khalifa Sall amuñu intérêt fal ko Sénégal parce que ah maanaam il est bah oui non je m'explique parce que Khalifa Sall moo njëkk nekk dans le système socialiste ba léegi nekk ci ministre nekk ci lépp Khalifa Sall instant bi suñu ko falee par exemple instant bi il va faire pire que Macky Sall il va faire pire que Macky Sall parce que système bi moo bon système bi day maanaam teg des mots yoo xamante ne keneen ku ko hérité da ciy nager un moment pare def lu ko raw moo waral soo xoolee quatre présidents yu fi jiitu yëpp seen bonteef maanaam dafa succédé teg tegloo le cinquième président qui va être un pro système qui va faire pire que Macky Sall. donc nag seen dafa tegloo man nga ne quatre présidents. dafa tegloo dans la mesure où Ablaye Wade fu ñu yaakaaroon ne maanaam. bon egg na fa ci politique Macky dafa ñëw yokk ko Macky su fi jógee su fi benn pro système toogee fu ñu yaakaar ne Macky fii la ko yéegal foofu day ñëw yéegal niveau bi système bi moo permettre loolu c'est pas les personnes c'est pas les gens mais système bi la parce que lu tax da nekk président ay nit wër la di la léché di la maral di la tooyal. loolu kese moom Sénégal. mais ni ngay waxee nii est que manqué woo maturité politique. un peu non attends dañuy non oh, ok est-ce que manqué woo parce que boo waxee mbonte. ak kaddu yi ngay utiliser sur des personnes. ban kaddu laa fi wax instant bii non euh, genre ñoom ñëpp dana fekk mbonte non il pas aggraver. ban kaddu laa wax alors moi j'aggrave tout. ban ban ban kaddu wax. damay damay ñëwaat. mbonte may mbonte mais mais président yi fi nekk ay. ils sont bien sûr ko on a de mauvais présidents dire alors maintenant bi nga wax nga génnee lu tolloog juróom teg fi ñeenti nit ñi sim cité nga Abdourahmane Diouf Bougane Gueye Ousmane Sonko ak yow ak ñu bokk ak yéen ngeen jàpp ne yéen Abdourahmane si vous avez parlé tout à l'heure d'Abdourahmane Diouf vous avez parlé d'Abdourahmane alors ñooñu nga jàpp ne ñoom ñoo baax ñeneen ñi nga bëgg leen sànni noonu loolu moo tax man la est-ce que amul quand même benn décès maturité politique li ma wax mooy man Je suis un nationaliste. Je combats le système politique qui est au Sénégal et je dis que ceux qui l'incarnent dans l'opposition suñu fi toogee dañuy def lu je l'assume le dis c'est pas méchant ce que je dis. Euh, contester le. Oui. parce que on le monde avec des mots on n'a jamais changé le monde aussi avec des mots maintenant yéen ñi nga xamante ni yéenay la jeunesse de l'opposition est-ce que euh, jarul ngeen utiliser yeneen méthode yu parce que man damay suivre personnellement sa page Facebook mais vous êtes toujours là à renier à clamer à wax wax bu naqari à saaga à xaste ah alors que vous ne non entre guillemets alors que vous ne mettez pas quelque chose de palpable à côté peut-être pour participer au changement du système est-ce que loolu tamit du du du paradoxalu am nga Sénégal dañoo tamul dégg dëgg en fait moo tax soo waxee dëgg da ngay am problème de te faire comprendre mais man je dis les comme ils sont et de façon la plus polie quand je dis que je suis un anti-système j'ai donné mes arguments dama wax sama argument nu ma nekk anti-système dama nekk Sénégal nu ñu ko gérer depuis 63 ans baaxul maintenant nag ki nga xam ne nag dafa judd ci système bi nekk produit système bi am na droit am na droit def ko am na droit défendre ko man dama dund ci deux modèles économiques dama dund ci modèle économique modèle démocratie économique bu baax muy Europe dund ko ci bu bon muy Afrique fii nii donc je connais carrément la différence xam naa fan lañ ñu naxee xam naa maanaam fan la ñu ñu diriger lajjee donc loolu laay wax ne que man je suis un anti-système et je anti-système c'est pas un délit dans ce pays-là peut que être membre de Pastef que ñu leen jàpp toujours mais être un anti-système c'est pas un délit quand même. kon yow su ma la déggee ci anti-système yow da ngay euh, pour l'arrivée d'un messie yow messie nga ñu bëgg indil messie boo xam ne day ñëw renverser la tendance li fi nekkoon yépp mu def ci table rasa. li fi nekkoon yëpp lan moo fi nekkoon yëpp li fi nekkoon lenn la mooy un président en plus dictateur parce que maanaam ñëpp ñoom loolu mérité wu ñu raser ko suñu waxantee dëgg te yàlla tax. non pour mettre n'importe qui que les Sénégal voteront xam am solo mooy ñu jox sénégalais yi offre politique bu bees ñu adopté ko votel ko ko Bougane mi ngi koy def Sonko mi ngi koy def Déthié Fall mi ngi koy def keneen mi koy def donc c'est ça en fait c'est les Sénégalais qui décident journalistes yi décidé ci dëkk bi autorité même décidé wuñu Sénégalais